majmuatul fiqihi wal fuqaha ah jamono yi nag ah, dafa am lu tàmbali di jib ci suñu dëkk bi ah, bari ñuy wax di àddu ci ci feebar bi nga xam ni yàlla wàcce na ko muy coronavirus ñu dégg jamono yi nag am ay nit yuy àddu ci turu xam-xam di wax ni am na fu ñuy toll lislaam daf ñuy may ñu dog koor ji ndax du mën a ànd ak feebar bi ci biir loolu ah ñu ne kon nag ñun nañ ko xool comme yàlla nga dogal suñu réew am na ñoo xam ni xamaguñu fu ñuy jëlee seen tegtal ak seen xam-xamu diine ku wax rek ñu topp la ñu ne kon nañ ci jéem a toog tënk ci dara biñ ko tënkee nag ah ñu diisoo ceeg borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñu liggéey bi ñoom ñëpp ñu ànd ci xalaat bi te rafetlu ko loolu leen bëggoon tënk la tënk ba mooy lii nga xam ni moom la ñëpp di laajante seen biir ndax nit ki mën na boole koor gi ak feebar bii nga xam ni mu ngi sonal nit ñi di sonal xeet wi am ci ñu àgg di wax ni feebar bi bëggul put guy wow lu bari ndax mën na gaañ boroom ñu ne loolu bu dee wax la tam du wax ju sax ndax ñi ko war a saxal saxaluñ ko ñi nga xam ne ñooy munazamatu siha al alamiya di organisation mondiale de la santé ñoom de wax nañu ni naan ndox lu baax la ci doomu aadama daanaka mënul ñàkk ñàkk naan mën na indi nit ki alkaani ci dundam waaye boole loolu lépp nag dégguñu benn yoon ñoom ñu àddu wax ni Euh, ñàkk naan mën na waral feebar bi dal nit te ñoom ñooy saytu wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi li ci doy tegtal mooy waa Italie ndax feebar bi foofu la gën a méttee foofu la gën a méttee ñi gaañu fa la ñu ëppee te chrétien seen diine foofu la sax parce que seen kilifaa nga fa te moment bi feebar bi di gaañ italien yi boobu ñoom ñu ngi woor kon su fekkoon ni ñàkk koor dina dina ko dàq dina tax feebar bi nit mucc kon ñu déglu leen ko parce que Italie moo gënoon sonn ci feebar parce que moo ci ëpp ñu faatu te moment boobu ñoom ñu ngi woor te kenn waxu leen ñu bàyyi koor gi kon loolu rek doy na tegtal ci ñu xam ni kon koor gi laalewul ak feebar waaye nag bu ñu delloo ñun ci sunu li ñu moom ñu jullit mooy ñu xam ni woor weeru koor farata la bu yàlla farataal ci jullit bu fekkee ni charte yi daje na ca moom te charte ya bokk na ca moom jullit bi mu mu majeur mu am xel mu am kàttan mu woor ci jamono bi ñu waree woor te mooy fu weer bi feeñee mu nekk itam koo xamante ni tukkiwul maanaam dafa teew nekk tam koo xamante ni set na ci deretu mbërëg ak wasin bu fekkee jigéen la te yooyu nag lay cosaan ba mooy aaya alxuraan bi yàllay wax ni yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun aaye booba ba mu jeex ak aaye ba ca topp daanaka yàlla dënk na fa ni koor farata la ci képp koo xamante ni jullit nga waaye tamit waxaale na ca ya ëpp solo ca yi nga xam ni mooy ngant yiy tax nit sañu dog kooram ñu mën ci tudd benn rek te mooy al marad al te mooy feebar bu wér ni feebar la si mooy fi mu ni fa man kaana képp koo xamante ni nekk na di feebar fa man kaana minkum boobu nag Euh, na arafa di boroom xam-xam bu mag euh, bu ñu demee ci tafsiram ba wax na fa ni euh, yàlla waxul fa man marida ku feebar ndax ku feebar mooy ku yëg feebar yëg feebar taxul nga dog sa koor yëg feebar taxul nga dog sa koor waaye feebar bu sax boo xam ne ñépp daañu xam ne kii dafa feebar rawatina fajkat wax ko boobu mooy feebar bi nga xam ne mooy tax nit ki sañ dog moo tax mu ne kaana taqtadi ak dawaam maanaam baatu kaana bokk na ci ay tegtalam ci xam-xamu luwa mooy day won ni lii ñuy wax lu lu nekk la luy sax la kon feebar wante dafa dugg rek dem kooku du feebar buy tax nit ki bàyyi ko waaye feebar bu sax buñ xam ne kii dafa feebar rawatina ay fàtte loo ko boobu feebar borom sañ na dog bu fekkee ni koor feebar bu mënta ànd ak koor léegi nag su fekkee ni feebar moom dafa sax ci aju koor nit ki dafa feebar moom mu ragal ci feebar ba lor fekk ko ca walla feebar ba yokk wala ak ak wala ak wéram yeex wala sax fajkat xamal ko ni ko feebar bi mënta ànd ak koor mën na ko gaañ kon su boobaa kooku sañ na dog kooram te jàpp yeneen bis pour fay ci koor gi waaye nag dog koor ngir ragal feebar bu la dal loolu amul ci sharia nit ñi duma woor ndax kat bu ma wooree mën naa feebar te waxtu boobu feebarloo boobu àtte amul ci sharia loolu moo tax ñu ni loola day dugg ci at tawilat al baida at tawilat al baida muy tawil baid boroom xam-xam yi tëral nañu atteem bu ñu demee ci téere bee di muxtasar dañ fa fekk aw li xuma suma xumma aw li xayrim suma xasal man tey wax ni ki nga xam ni dafa feebar dafay faral di feebar mu jàpp ni kat bis sangam danaa ca feebar kon bu ma woor wala jigéen jox xam ne dafa faral di gis mbërëg mu ne ah le 15 bi di ñëw di moom daanaka dama ci gis mbërëg saa yu accès kon jarul ma koy woor mu ne ñaar ñi ñëw sukkandiku ci lu nekkagul ba toog seen koor mooy ki jàpp ni dafay faral di feebar di wér mu ne ah bis sangam dama cee feebar kon jarul may woor far ba bis ba dikkee mu feebar te fekk dafa dogoon. wala boog jigéen di jàpp ni bis sàngam su ekkee accès day gis régalam mu dog forme bis bi accès mu gis régalam donte la mu foogoon am na bis boobu dina ko fay dina ko kafaara kon bu ñu sukkandikoo ci loolu day firndeel ni kon nit du jiital lu nekkagul ngir dog ci kooram léegi nag bu ñëwee ci li nga xam ni mooy li tax ñuy wax te mooy xog mu siyaami fii zilli tahdidaati fedos corona al mustajib gàccekoor ci xew-xew bi parce que kii naazila la feebar bi di euh, euh, euh, virus corona naazila la naazila ci sharia mooy loo xam ni dafay soog ñëw ñu njëkk xamuñu ko woon naazila ci sharia mooy loo xam dafay ñëw njëkk xamuñu ko woon feebar bi mu ngi soogu ñëw doonte feebar daan na fi nekk mais ni feebar bi xeetoo ak ni mu meloo feebar daaw ko mel ndax gis nañ ni mu def adduna bi kon nag naazila su amee ay borom xam-xam ñooy ànd jàngat ko mais lu kenn nit rek mooy taxaw atte ci la mais naazila ay boroom xam-xam ñooy ànd atte ko ñu ko xoolee gis nañ ni ay boroom xam-xam ak lu mu jàmp-jàmp jot nañ cee wax ndax ragal nit ñi dend la ko feebar yi nga xam ni wala dugal ci luy tax nit ñi bañ ko wax borom xam-xam yooyu mën nañ ci tudd al oustaz Moustapha Kaye moom boroom xam-xam la nekk fii ci senegal waaye sax moom tam bokk ci suñu mbooloo mi moom bind na ci wax ni. falaw nada al atibaau fiina qailina inna sawma xatarun ala saxiixi lintishaari covid 19 fala yajuz lana xabulu qawlihim wala al axzu bi rayihim li anna tawaqu al maradi laysa uzran maanian an sawmi sharan mu ne même bu fekkoon ni fajkat yi boroom xam-xam faj yi muy médecin yi ñoom ñoo ni ah nit ñi kat waruñu woor même ci dara dalul bu mu woor parce que kooram mën na tax feebar bi dal ko seen wax jooju waruñu ci sukkandiku pour bañ a woor kon li jaadu mooy nañu woor ndaxte di gàtt nga feebar bu ñëwagul bokkul ci ngànd yi tax nit dog kooram loolu sax mu safaakay wax na nekk noonu bu ñu demee ci euh, markazul azhar li fatwa électronique ñoom itam euh, dajaloo nañ ci wax tënk yi laa yajuuzu lil muslimi an yuftira ramadaana illa iza qarrara atibaahu wa sabata ilmiyan anna siyama sa yajcaluhu urda lil isaaba wal halaak bi fayruus corona wa huwa amrun lam yasbut ilmiyan xatta haadihi laxda ñoom ñu ne ñoom ñu ne jaaduwul ci jullit jaaduwul ci jullit mu dog kooram lu dul ni médecin yi ñoo ko wax ni ko yow sa koor gi mën na la yóbbi musiba waaye nee na fi toll nii amul benn médecin bu wax ni koor mën na yóbbee nit musiba ñi ci des ñooy lañet buxus al fiqhiya bi mën waxee buxus islamiya ñoom tam dañu kuréel la bu yëngu ci wàllu xam-xam daje nañu le 7 avril 2020 ci teewaayu borom xam-xam yu bari ak teewaayu ay docteur ak ñoo xam ne sax euh, représentant lañu ci munazama siha al alamiya muy organisation mondiale de la santé mais ñoom ba ñu dajoo tënk lii la ñu génne mooy amul benn benn tegtal bu wér tegtal bu wér buy lënkale koor gi ak feebar amul benn tegtale bu wér buy lënkale koor bi ak feebar kon nag ñu ne tabqa ahkaamu shariati al islaamia fi ma yataallaqu bi sawmi ala ma hiya alayhi min wujubi sawmi ala kaafati al muslimin kon ñoom ñu ne comme nag xoor gi amul benn relation ak lii nga xam ni mooy feebar bi te ay borom xam-xamu faj wax na leen ko kon lii nga xam ne mooy àttee sharia ci koor na mu nekke woon la nekk kon te mooy ku dara dalul na nga woor ku dara dal demal ñu xool la bu médecin bi gisee ni li la dal mënta ànd ak koor su la ko waxee nga bàyyi bu ñu demee tam ci al jarida al kowetiya bi tudd al anba ñoom tam seen numéro bi génn 6 avril 6 avril 2020 Euh, te nekkoon ci titre woon ko ulamaun yubayyinuna ra'ya shar'iyya fii sawmi ramadana manti shari corona maanaam ay borom xam-xam a ngi nii dajaloo di jàngat euh, koor ak lii nga xam ni moo fi siiw di covid 19 bi di corona tënk nañ fa lu bari mën nañ ca lim a cheikh docteur Rachid as Saadu Alaymi ak docteur Saad Salim al Anzi ak docteur Jalabi ak Cheikh Saad ibn Muhammad Achamri ñii ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ni ak li muy jàmp-jàmp jot nañoo dajaloo dëgg ci te ay borom xam-xam lañu bu dee docteur Rachid Al-Olaymi moom fi mu tënk waxam mooy maa dumta sayhan alayka asiyaam maanaam fii ak yaa ngi wér dara dalu la li war ci yow mooy nga woor dara dalu la li war ci yow mooy nga mu àgg ci nii soo demee ba yëg ni sa put mu ngi wow sañ nga jël ndox galaani ko nga tuuraat ko waaye te bu ko àggale waaye nag euh, euh, wax nit ñi bu leen woor ixbaaru ixbaaru xukmin aamin ala dawla bi akmaliha ala tasuma faasa amul na yëg bi tabaay maanaam wax nit ñépp bu leen woor te sukkandiku ci lii nee na loolu jaaduwul warul ci sharia bu dee docteur Jalawi nee na ab jullit warul bañ woor lu dul ni ab médecin moo ne ko bul woor te ba fi ñuy wax yéen nii nee na saxagul ci xam-xam benn médecin bu am xam-xam bu wér bu ni koor gi mënta ànd ak feebar bi comme loolu saxagul nag kon nit ñi nañ sax di koor bu dee Cheikh Saad Chamri moom tam nee na werante amul ni feebar bi bokk na ci feebar yu metti yi kon nag ku mu dal li war ci yow mooy nga bañ a woon ndax feebar la bu metti day laaj nga lekk di laaj nga naan laaj jël ay garab ci ay waxtu yu ñu ko ràññatee kon ku mu dal te ñu ragal ci yow ni mën na la gaañ ah mënu ko boole koor kon na nga dog waaye nag koo xam ne nag moom dara dalu la mais dangaa ragal ni feebar bi mën na laa dal soo woore nee na kooku warul dog kooku Saad Chamli moo ko wax kon bu ñu dajalee lii nga xam ni moom la borom xam-xam yi wax kon lañuy dégg mooy ragal feebar dal la bokkul ci ngànt yi tax nit bañ a woor ba sax bu ñuy demoon ba ay boroom xam-xamu faj wax ko ci suñu sharia bi jaaduwul nit nit di dog kooram ci feebar bonte ni dalagu ko kon loolu daal mooy li nga xam ne moo tënku ci li ñu dégg ñoom euh, donte sax am na ñu dégg jamono yi ñuy wax ci réseaux sociaux yi naan suñu accès ci médecins yi wax ni euh, bu leen woor ndax mën na leen indil ngàncax bu leen woor su boobaa bu leen woor bëgg a tegtaloo ci li yàlla wax ni wala turku bi ay diikum ila tahluka li yàlla naan su bu leen dugal seen bopp ci lu leen di alal waaye mbokk yi alquran aaya dafa am ay sabab balaa nit ki di tegtaloo ci aaya war na xam lan mooy sabab ba taxoon aaya booba wàcc aaya booba bu nu ko jàngatee bu nu ko jàngatee aaya booba terewul jaamu yàlla aaya ba terewul jàmm yàlla wala waaye day soññ ci jàmm yàlla parce que dafa doon soññe ci nafaqa te moom la Buxaari euh, solo jëlee ko ci Xoseyfa maanaam li tax aaya bi wàcc mooy soññe ak digle ñu jël alal bi def ci yoonu yàlla te jël alal ci yoonu yàlla jàmm yàlla la kon aaya bi terewul jàmm yàlla naka noonu li nga xam ne boroom xam-xamu xadis yi wax nañ ko euh, te jëlee ko ci Abu Ayub al Ansari mu ne aaya bi mu nga wax ñoom ansaar ndax bi yàlla demee ba lislaam am li mu am ci wàllu mag wàllu taxawaay wàllu dëgër ñu ko taxawu bari dafa tàmbali nag ci biir ansaar yi ñoom seen biir ñu tàmbali wax ci suuf naan lislaam la mu bëggoon am na ko waaye ñun lañu amoon amatuñ ko ndax suñu alal yi sànku na te lislaam la ngi taxaw na dëgër këcc waaw ndax ñun bu ñu toogoon sàmm suñu alal yaa ndax dina sànku yàlla dégg ndéy la wàcc aaya bi pour xamal leen ni leen seen cànkuteg seen alkaange mooy ngeen bàyyi fi li yàlla santaane dem di sàmmi seen alal alkaange mooy ngeen dem di sàmmi seen alal ak bëgg lu ko duufal bàyyi fi li yàlla santaane te mooy dem xarit yoonu yàlla wala jël sa alal def yàlla kon lii moo tax aaya bi wàcc kon aaya bi terewul jaamu yàlla buñ ko jël sukkandiku ci